Kayda Ndiaye ànd ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf ku ciy def garab goo gis rocci ko di nga rocci garab gu ami dékk ubbi l'observateur piscine party ba woon keroog ci almadi jur na fitna juree ci tribunalum Dakar ne ñu jàppoon ci piscine party bi daf ci benn xale bu jigéen boobee Canada la jóge woon ñëw Sénégal demoon bokki ci piscine party ba ba ñu leen jàppee ñu toll ci ñeen fukki nit ak juróom-ñaar démb ci la leen defeere ancien ministre socialiste bi dafa corona nee na ab awakam bi ñu leen yóbboo gendarmerie wax na ko enquêteur yi waaye faale ko l'observateur nañu ni ko ab awakam xamee moo di bi ñu leen indee ci caavu tribunal ba fa la ko avocam fekk xale bu jigéen bi fa ko xamale ne dafa corona laaj ab téléphone ñu indil ko ko mu génnee ci résultat yi wane ne dafa corona yéenekaay bi nañu ci la avocat bi demee wax ceeg ñi ma ko war a wax ci la procureur bi santaane ñu jële ca caavu tribunalum tribunal ba boo boolee ñeneen gone yi ñu jàppoon ca piscine party ba jur na jaaxle gu rëy démb ci tribunalum Dakar ndaxte ña ñu jàpp da ci am kenn ku corona la tribune ko du kenn rek ñeent ci ñoom ñoo corona mu des léegi nag ñi ñu amal contact doore ko ca gendarmerie ga ñu njëkkee ba ca tribunal gi ñu mujjee démb l'observateur ne ko détenu yamu neewaloon ca kaaf ba ñoo ngi toll ci juróom-ñett fukki détenu ak ñaar ñoom ñëpp lañuy isolé ci hôpitalu Fann ñi ñu amal contact ñu seetaan leen ngir xam ba xam ndax jot nañu ci coronavirus bi am déet euh, coronavirus bi ñàkk yi ci séentu ngir mu mënal ko dara journal Le Quotidien xëy nañu ci wax dara nee nañu ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr moo wax démb ne bu weesoo vaccin yi ñuy séentu ci initiative COVAX ñoo ngi waxtaan ak réewum Chine ngir amee ci moom lu toll ci ñaari téeméeri junniy doosi vaccin Abdoulaye Diouf Sarr leeral na it ni ba fi ñuy waxee ni amul benn ñàkk bu duggagum ci réew mi l'observateur nañu moom Diouf Sarr ministre de la santé moo dugal démb ci compte Twitter am ne réewum Chine may na réewum Sénégal doo vaccin yu toll ci ñaari téeméeri junniy dose vaccin yu Sinopharm ginnaaw bi ci la ñu waat xibaar bi ci compte Twitter bu ministre bi source mel ne naan ñu li indi moo di réewum Chine dafa may Sénégal ay ñàkk yu toll ci ñaari téeméeri junniy ñàkk waaye kilifa yu réewum Sénégal yi nee nañu bala ñu koy jëfandikoo dañuy xam dëgg-dëgg ñàkk yooye ana lan làmboo journal bi nañu la ciy ñuul nag moo di chinois yi maye ñàkk yi nangu ñu wax li centre des œuvres universitaires bu Ndakaaru di Maguette Sène journal bi nee nañu moo joxe xibaar bi démb xam ne ne président de la république Macky Sall ci turu état bu Sénégal jël na dogalub mottalil étudiant bi li mu soxla ngir mën a dem faju ji téeméeri million ak ñaar fukk la président nee na dina ko ko joxel téeméeri million ak ñaar fukk la président nee na dina ko ko joxel téeméeri million yi danañu ko yónnee hôpital ba mu war a fajoo ca Bordeaux ñaar ko ci compte Sadio Ousmane Diédhiou mu doon ay frais de wajaasam l'observateur dolli ñu ci ne docteur Ngom médecin bu ndem si moo ci dugal loxom bu baax a yëf yi la waroon doon docteur Ngom def ci pexe dox ci wax ci ba mu wàññeeku ba yegg ci 120 millions Sadio Ousmane yéenekaay bi nañu ab étudiant huitième année médecine la feebar bii ñu naan aplasie médullaire moo ko dal ñu dali ci beneen étudiant Sénégal bu ay mbiram xëy fës ci yéenekaay ñu xëy ndool libération nee nañu moo di jaari sow mi ca France juróom-ñeenti fan ci tey yéenekaay bi xamul ñu ne ay mbokkam nee nañu ñoo ngi dundee yaakaar moom jaari sow fa mu nekk moo fa bàyyi boppam ñu bàyyi coow loolee te wax ci coow li am ci Dakar dem dikk ci diggante maître Moussa Diop ma ko jiite woon ak bun xataab si la ma ko fa wutu Vox Populi bind ne ginnaaw kàdduy tuuma yi bun xataab si la yëkkati woon teg ko ci kaw ndoddal maître Moussa Diop maître Moussa Diop weddi ko ba tegalaat ko moom it yeneeni tuuma maître Moussa Diop nee na ba mu jugee ca Dakar dem dikk ak léegi ak ak ko gundaan xam ne nekk salaire directeur nga am. comptoir commercial de plomberie du Sénégal CC. www.senegal7.com le roi de l'information en temps réel suivez-nous sur YouTube Facebook et Instagram téléchargez l'appli Sénégal 7 sur Apple Store et Play Store Sénégal 7 le roi de l'information en temps réel